moi je suis sénégalais je suis né le 26 septembre 1965 à Mauritanie deux ans ci laa Sénégal avec mes parents papa donc affecté woon est-ce que a le tax mon maa ngi dem école primaire école 1 bu Mbour maa sama primaire après Saint-Esprit ma def sama secondaire dem ni maamu laay def fa sama formation trois ans génn bon j'ai chômé ensuite amoon na boutique bu ma newoon balaa liggéey pour def fa trois mois après toog un an ci la ma tey ba embauché en 91 le 11 mars 91. moom mécanicien maa ngi ko jàngee Limamou Laye fa laa defee sama formation trois ans en 87 laa génn ba génne 87 en 91 ci la ma tey ba embauché ba entrant j'ai fait un stage à au 16 aussi en 88 temps am na ay kii jëloon nañ ma tamit euh, waa département forage et puis bu Caritas. defoon naa fa quelques mois avant ICS si ma jël en même temps avant may liggéey ICS tamit nekkoon naa ci benn boutique def naa fa quatre mois. léegi man gos yi mi ngi ma tàmm ma ma mi ma dawee bi ma doon liggéey ci boutique boobu bon bi ma liggéeyee ci boutique boobu j'avais vingt quatre ans moo togg toll sama digg doole bon bon tentative xale jigéen ñi topp ma. ba ma bëgganteeg benn xale bu jigéen bon bëgg bi nag bëggante bi moom jéggi dayoo léegi ma ne li ma bëggee nii ndaw si pourquoi pas ma bëggee ko borom bi ci li pa par la suite bu def ma choc ma defee choc nag ma bàyyi ndaw si bàyyi boutique bi ci laa def ci laa benn bind benn kii ma ne en 2002 Sénégal dina jël coupe du monde en même temps dina jël coupe d'Afrique kooku maa ko bind en 90 boobu boobu période boobu Catherine dis mi ngi dajeek sama choc bi mi ngi dajeek euh, euh, Sénégal ba mi dajeek Zambie en demi-finale 90 waaw Senegal laa bind nag mel ni Sénégal dina jël coupe du monde en euh, 2002 ak coupe d'Afrique ba bind équipe yi muy dajal bind équipe ñoom de but ak nombre de but ak heure bi but mais loolu amagul mais nag. ba léegi maa ngi topp recherche yi nee na recherche yi mi ngi ma may ne en 2012 moom en en 2018 en Russie incha allah le Sénégal moo jël coupe bi. man ni ma dikkee ni ma dikkee mooy dama ni bon période bi mu sentir dëgg-dëgg recherche yi c' était en 2004 2004 dama seetaan les Jeux olympiques d' Athènes ma seetaan les Jeux olympiques d' Athènes dama gis euh, waa ji raw rawoon ci marathon bi mu ngi solal dorsat un deux trois quatre bi mu ko solee bi mu ñëwee ba à cinq cent mètres avant coupe bi avant avant avant avant terme tête bi ligne d'arrivée bi benn dof téye ko bu téye le vingt et un cinquante sept moom moo jël euh, raw gàddu bi moo jël premier léegi vingt et un cinquante sept boobu chiffre boobu moom laa doon topp léegi dafa dem ba 21 57 bi ñëw ci billet de banque yi may jot à note dispersé ba ma photocopier woon ko am na yu ma jot a photocopier ba léegi ci laa gën a firnde ni lool day am ci laa gën a firnde ni en 2018 day am incha allah non maanaam xam nga Mauritanie dafa nekk pays boo xam ne dafa feeñul fenn dañ ko gisul ci dara dafa yënguwul ci dara faiblesse bi am Mauritanie nag. faiblesse boobu moom ma dal moo ma dal man ba xam ne man Mauritanie laa juddoo faiblesse boobu day ñëw renverser la situation daal di jël raw gàdd gi moo tax ma ma ni Mauritanie mooy mooy jël raw gàdd gi ci anam goo xam ni dafa feeñul fenn jékki-jékki rek sulleeku moo tax ma def ni Mauritanie mooy jël coupe bi non du question faral man par intuition laay demee su ma demee par intuition sama intuition lu ma wax rek moom loolu la loolu laay wax loolu lay jàpp ne loolu lay doon. Ah, période boobu xam nga buur yàlla tey dof lu làqu ak lu nëbb lu feeñ parce que boo jëlee sooratu Noor dafa ni ma lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe la lampe est dans un verre pareil à un astre étincelant qui s'allume grâce à un arbre béni, un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident et dont l'huile brillerait sans que le feu la touche. Lumière c'est lumière, Dieu guide bien sa lumière qu'il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles, Dieu connaît parfaitement toutes choses. Les gens mu pour boobu as 35 la mu ñëw 40 les actions des mécréants sont encore semblables faut dañu woon ma lumière est semblable les actions des mécréants sont encore semblables donc mon bi wax ñaar lay mu ni les actions de mécréants sont encore semblables à des sur une mer profonde des vagues la recouvrent vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues sur lesquelles il y a d'épais couches de nuages ténèbres entassées les unes au-dessus des autres quand quelqu'un tend la main on la distingue presque pas celui qui la prive de sa lumière n'a aucune lumière donc yàlla buy wax day wax day day day day day def lu feeñ ak lu nëbbu mooy lii lii dafa nëbbu coupe d'Afrique bi cou du monde dafa nëbbu mais day am lu feeñ loo xam ni day am lu mu moo waral coupe du monde lii am mun mun ñuy dem bay nekk lu dem ba am luy nekk te nekkul am leneen luy ñëw loo xam ne day nekk